ay mu ngi bëgg dox ci diggante bisu ngoone bu 2STV ak Mbathio Ndiaye fecckat ba woon woykat bi de moom Mbathio Ndiaye dafa daal di porte plainte bisu ngoone li ko waral bokk na ci dafa yëkkati benn million jox ko bisu ngoone ci ay matériel logistique yoo xam ne daf ko ko waroon a jox ci jamono ja muy def vente privée moom Mbathio Ndiaye nag ginnaaw bi nga xamee ne dugal na ay kopparam ci biir dafa jékki-jékki bëgg koo xàcc ne damaa bëgg a jotaat sama benn million bi nga moom laa déposé ci bisu ngoone bisu di ko xamal ni ko benn million bi nga ko joxee ci lañ ko daal di déposé ci télé ba ci 2 TV moom Mbathio Ndiaye ci benn audio mu ngi cee xamal nit ñi leen aw ma problème ak benn télévision aw problème ak 2STV aw ko itam ak ci ITV aw ko ak waa TFM ki ma amal problème moom moo di bisu ci boppam moo yor sama xaalis lank kandaare tëdd ca naaj wa lank ne du ko delloo ba noppi itam di ma jox cinq cent mille desal ma cinq cent mille ma ne ko du laal cinq cent mille ba ma ko yónnewee ci sama wéef ci laa ko ko daal di delloo confrontation googule kii nekk nga xam ne moom la mbaati doon waxal ci audio ba mu ngi koy laaj ne ko ndax confrontation ba nga fa demoon da nga ko koy fay am déet mu ne ko confrontation kenn du ca fay ndaxte am na ci loo xam ne bu xewee rek man Mbathio Ndiaye dama ci wut ay renseignement dama yëkkati sama téléphone woo Alaaji Ndiaye mi nga xam ne mooy borom 2STV borom cëggal guy wi ba ma ko oowee wax na ma lu leer nañ ba mel ni midi ci émission confrontation li ma ci xamal bokk na ci confrontation du émission boo xam ne nit dafay ñëw di fay képp ku fa ñëw gratuitement nga fa ñëwee ñoom kay ñoo fa nekk di def naka sudul noona waa ji nekk ci audio bi moo wax li ni mel daan ne Mbathio Ndiaye kon nag gaa ñi dañu faa nekk di dóor kon émission boobu lee émission dóor lañu ko def waaye nekkul émission boo xam ne nit ñi dañoo war a fay ndaxte normalement boo fayee ci ab émission dañ laa war a bindal reçu boo xam ne day wane ni télévision bi nga fay waaye fayoo ko aw nit Mbathio Ndiaye nag nee na coow li daf koy yóbbu fa ma xam ne doone benn ndaxte moom kenn xamu ko ci génn di wax ak tontonte saa bu génnee wax rek am na lu ko ñor ci boobu lépp coow moo taxit nag yëf nga xam ne moo di Bijou Ngoné moom mi ñu porte plainte ci page Snapchat am fi nga xam ne fa ko gars yi di gis yenn saa gis nañ ko mu daal di def ay sinabam mel ni ku faaliwul mbaacu njaay di ko xamal ne ko coow li bagajuma dara luma ci saw plainte plainte bi nga ma plainte amul benn jeexit bu muy def ci man Bijou Ngoné ci boobu lépp sinap mu ngi ci wan mbaacu carrément ne ko coow li faalewu ma ko tey tamit nag fu la neex dem fa ak man loole la koy wan ci boobu lépp vidéo moom Bijou Ngoné ma nga cay xàppi nekk ci liggéeyam ba noppi itam leneen ak leneen doon jéego mi fi yekk musiba ak mbelengaan Wally Ballago Seck dem na ca fa nga xam ne moo di Subatel Music doon jéego léegi nag officiellement bokk na ci ñi nga xam ne dañuy liggéey ci staff bu suba Subatel Music dëkk nañu ko micro laaj ko coow li nga xam ne moo dox ci diggante waa kër di Diop ak waa kër Wally Ballago Seck moom doon jéego nee na ñi nga xam ne ñoo di waaraam daan dañ leen a nawloo woon kenn xamu leen woon ci ay wax kenn xamu leen woon ci xiin yi mi na ak wax ak waxantu wala nekk fi di ak ay doomi aadama doon jéego nag nee na loolee su demee ba am dafa am koo xam ne moo waral li ni mel ki fa nekk di Umar Seck Umaroo ci boppam lay waxal daal koy tuddee Umar Seck nee na kookee moo fi indi lépp borom bakkan yu bari na fa aw bakkanam moom doon jéego wàcce na Umaroo yekk na ko ko démbam ba noppi itam génneel koy histoire am fekkee kër ki nga xam ne moo di ci Matar ba ko njëkkee gis la nga xam ne moom la daan sol moo di benn mayluusam nekk fa di fomp ay karo ak araxas nap loolee kottu la nekk woon kër Matar Diop suba teel ba ma fa ñëwee ci la ma Matar oo ba ma ñëw mu ne ma sama boy bi bëgg naa nga daal di koy jàppale ci laa ko yóbbu ci télé ba nga xam ne falaa nekkoon di liggéey maa ko njëkk a yóbbu ci télé taxawloo ko fa liggéeyloo ko fa kon nag Omaro mi nga xam ne tey moo fi nekk di wax dafa amul kóllëre su amul ko su amul kóllëre dëggantaan dana deltu ginnaaw xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom la ñu ko jot a defal ba mu agsi fii mu agsi moo gën waxam ju bari ji lee bu mu duggee ci Ramadan ba tey ci la ñu xeeb waa ndaxte moom kott moo fa indi wax ji Ramadan daaw ñu leen dégg ci benn leen xame woon mooy toog liggéey ñëpp nawloo leen waaye léegi kenn defatu leen ay nawle ndaxte dañoo gàddu télévision yi ngar daajoo site internet yi fenn fu ci nekk ñu daal di fay toog nekk ci coow li di wax akadémaka dikk Sidi Diop nag mu ngi ci liggéeyam te communication ñëpp xam nañ ni communication bu baax la Sidi Diop saa bu waxee ñëpp nawloo ko ca na muy waxee saa bu waxee itam ñëpp nawloo ko ca na nga xam ne noonu lay tonto doon jéego réagir na yàq na musiba ak melengaan umaro ba noppi itam riij beneenum coow ca Ndella Madior Diouf ma nekk ca sacré li nga xam ne moom moo di pépinière ba mu ubbi dafa dalal ay gone ay bébé yoo xam ne dañuy soog a juddoo Ndella Madior Diouf jëf ju baax jooju nga xam ne daf koy faral di jëf am na aw yuq njur wu ko ca dal am na koo xam ne dafa dugg sàcc fa benn xale benn ndaw soo xam ne dafa am jëkkër ju nekk fële ci bitim réew mu koy gëm loo ne ko dama ëmb jamono ji nga xamee ne mu ngi gëm loo borom këram ga nekk bitim réew ne ko damaa ëmb fekk na yow ay caaxaan la ay waxi naxasakanang la furaas dalli moom ndaw soosu le ci def saa su nekk mu jokkook borom këram boobale kooko di ko yónnee koppar yi waaye kookulee xam na bu baax xeli ne ndaw si ëmbul waaye daf ko doon xaar bis biis dana ñëw lépp daal di leer ndaxte ab ëmb deesu ko na bu lu ëpp juróom-ñeenti weer mbaa sax nag bu fa àggee ñëpp dinañu xam ndax jur nga waaw wala déet ndaw si ngir dëggal ne ko ëmb la moo taxoon mu dem ca pouponnière bi nga xam ne Ndella Madior juuf ci boppam mooy ki ko moom waxtaan ak vigile bay nekk ci buntu ba waxtaan ak moom tëral aw plan ne ko dinaa la jox ñaari million ngir nga mën maa sàccal benn ma ko ma daal di koy jëfandikoo waa jooju la nga xam ne moom la doon waxal di vigile bi dafa yëkkati mille francs avance ko ko waa ji xaar ba yëfi ne tekk tekkaral mu yëg ci kaw dugg ci biir néeg jël ci benn xale yi ñëw indil ko jox ko ko waaye terewul police bu Sénégal ak seenub xereñte police bu Sénégal ak mën gi ñu mën ci ab diir bu gàtt enquête nañu ba daal di loxarti ñi nga xam ne ñoo jëf jëf jooju le kooku li nga xam ne moo di bi ki doon jàppale ndaw si ci loolu le daal di nañ koy def garde à vue ji le enquête ne jëf ju baax moo ko tax a jug ci li ni mel jëf ju baax la ci jublu terewul ñi ñu ngi jéem a xajamal li nga xam ne moo di liggéeyam boobule diggante siidi Diop ak njàpp xajam na jamono jile Sidi Diop ak njàpp donte ni sax waxuñu ko ba ñëpp dégg ko seen diggante yëf ya neexatul Sidi Diop mi nga xam ne génn na wax ci njàpp mi nga xam ne dem na ci balaa ko Seck donte waxul directement ci njàpp Wally sekk la daal di tontu loole mu ngi firndeel ni Sidi Diop dem gi nga xam ne njàpp dem na ko ci Wally sekk loolee dara ko ci neexul Sidi Diop xamee ne njàpp bàyyi na ko li waral njàpp bàyyi ko dëggantaan moo ngi nii njàpp ci boppam dafa daal di woon tawat tëdd ca këram nga nga xam ne moo nekk ca Kaolack ci ay waajuram waaye jamono ji nga xamee ne tawat na ba sonn Sidi Diop owu ko lijjantiwu ko faalewu ko jàppalewu ko bu mu jug ci tawatam googule ci la garde ab ranking maanaam xool ba bon ci Sidi Diop tax na wowatu ko lijjanteetu ko faaleetu ko dematul ci Sidi Diop tax na mu daal di jékki-jékki ne damay fangé wu ci la daal di dox ak i tànkam dem ba ci seen wàlli balago sekk feccal ko ba ni saay Dakar Walefa Wally Seck jox ko oto wala sax jox ko njëgub oto loolee moo indi coow lii tax na jamono jile njàppali waral mu def loolu le dem ci balaa ko Seck ñaari yoon ñaan ko fa oto yëngal coow li dafa bëgg ñu daal dina ko njàpp dàq nañu la Sidi Diop itam xam ne njàpp dafa bëgg ku ko dàq moom itam mu ne patt pataaral du ko dàq daf koy bàyyi ba mu démissionnel boppam ñoom ñaar nag kan moo ciy njëkk a bàyyi kan mooy njëkk a firndeel ni sëy bi tas na muy Sidi Diop muy xëy dàq njàpp wala njàpp ci boppam xëy ne sama diggante ak yow maa ngi ci Wally Ballago Seck loolu la ñëpp di xaar ki ñëpp di xaar jamono ji la mooy soxna Aïda Saliou la voyante boroom gis-gis bu mag bi bile yaay ci Wally Ballago Seck ki nga xam ne Wally Seck defal na ko sargal bu rëy ca parcelle ci digg stade ba la taxaw daal di koy bàkk kañ ko ba noppi itam sargal ko ci ñetti morceau yoo xam ne Wally Seck lépp daf ko way soxna Aïda Saliou ak njabootam gi ci jëfam ju rafet ji nga xam ne moom lay jëf moom soxna Aïda Saliou moomule ak ki nga xam ne moo di Pape Thiam borom Sénégal d'abord Sénégal d'abord dañoo daal di jàppoo ci seenu diggante jàppale ay jigéen ñu takkoo takku lu ëpp ay téeméeri mouvement ci ay jigéen financé nañu leen ci ay koppar ba ñu yor seen yëfi bopp bay dimbali ay doomi aadama yooyu la jigéen nag ñoo daal di dajaloo fas yéene def sargal soxna Aïda Saliou defal ko anniversaire bu rëy defal ko bés boo xam ne dañ ko cay ñaanal ngir mu gën a yokk bés boo xam ne dañuy wan Sénégal gi ne soxna ay Saliou nitu nit ñi la nitu Sénégal xam ne jox na leen ay koppar yu takko takku ba ñu nekk di liggéey moom ak Pape Thiam mi nga xam ne mooy borom mouvement Sénégal d'abord tax na jigéen ñooñu leen ëpp nañ ci ay téeméer di dem ñu ngi waajal bis bu mag a mag le 6 janvier gi ñu dëgmal ci atum 2024 ci lañ fas yéene def bis bu rëy rëy jàkkleel ko soxna Aïda Saliou sant ko gërëm ko ci liggéeyam bu rëy bi muy liggéey ci Sénégal sant ko gërëm ko ci sociale bi muy def sant ko gërëm ko ci taxaw gi nga xam ne mu ngi koy taxawu ay njabooti jàmbur sant ko gërëm ko rafet ji nga xam ne jëf na ko fii ci Sénégal sant ko gërëm ko itam ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci réew mi taxawaay bi nga xam ne itam am na ko ci ginnaaw amadu Ba ba ci président Macky Sall moom soxna Aïda moom Serigne Salihou Mbacké TFM télévision Futur Média fa coow la wulee ñaay jamono ji lee mbirum frigo ñëpp di ci wax boobu ba léegi ginnaaw Binta Diallo Aïssatou Diop Fall ak ñeneen ñi nga xam ne kenn ku ci nekk jàpp nañu ne fësatuñ ci boobu lépp télévision Bijou Ndiaye mi nga xam ne moom itam xam nañ ko ci turam dëggantaan di Khady Ndiaye bokkoon na quartier général gi ñu weesu ci koor gi ñu génn Bijou Ndiaye kenn gisatu ko mu bokk ca animatrice yiy fës ci boobu lépp télévision donte ni bokk na ci ñi nga xam ne daan nañu fa animé ay émission yu bare bare ay émission yu takko takko mës na ko faa def moom Bijou bokk na ci ñu fa gënoon a fës TFM indi nañu beneen programme bu yees indi nañu yeneen i émission yu yees yoo xam ne dafay mën a may ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci frigo ba ñu indiwaat leen Besel Baas indiwaat nañu ko Mado Jaw indiwaat nañu ko Ñatamba indiwaat nañu ko ñeneen ñu mel ni moom waaye moom Bijou Ndiaye kenn gisu ko ci yooyu la grille de programme yi nga xam ne TFM télévision Futur Média indiwaat nañu ko ngir mën a daal di mosal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci frigo bi ñu génnewaat leen ci boobu lépp moom ba tey dafay toog di xaar Mia Guissé ma ngay sellal Mia mi nga xam ne ginnaaw ba mu tasee aw sëyam ba léegi Mia mi nga xam ne ginnaaw ba mu génnee idda ba suñu jonni yàllay tey dafa daal di changé ab colkaam di sol yëre tubaab doonte ni sax mësuñu ko gis mu sol yëre tubaab moom Mia foo ko mësaane gis yërey fas yu rafet la daan sañse ñëpp naw ko ci moom ak borom këram waaye bu mu ca génnee la daal di changé aw colkaam Mia Guissé lañ ko daan critiqué ci aw colkaam tax na Mia jamono ji le sellal na ca Dubaay ga mu nekk ba muy dem dafa daal di sol aw jàllaabam su rafet ba noppi daal di jot muuru aw kaalam def ci ay photom posté ko daal di koy bégalee ay fansam Ousmane Sonko wér-gu-yaramam ñu ngi ñu ci wax lu leer Ousmane Sonko mi ne dafa nekk ci nungu siin Ousmane Sonko mi nga xam ne dafa nekk ci nungu siin ba noppi itam ñu yóbbu woon ko ci réanimation Ousmane Sonko moomule nee na cocc coccooral léegi dara jotatu ko ki ñu wax li mel moo di avocat bii di maître Larifou moom ci boppam moo dem ca kaso ba nga xam ne moo nekk fële ca Cap Manuel fekk ji fa Ousmane Sonko xool ko nemmeeku ko bi mu génnee wax na patriote yëpp xamal leen ni leen Ousmane Sonko mu ngi ci jàmm Ousmane Sonko wér na nee na cocc Ousmane Sonko am na moral Ousmane Sonko kanam ga dëgër na léegi Ousmane Sonko tey la gën a déterminé wu Ousmane Sonko tey la gën a taxaw ngir xeex xeex bi tey la gën a taxaw itam ngir am ndam bokk ko ak waa Sénégal bokk ko ak waa Afrique moom mi nga xam ne moo di avocat ci Sonko nee na Ousmane jamono jile bu ko kenn waxalati benn tawat tawatul tey tamit nag lépp luy tawat wan na ko ginnaaw léegi nag dafa seeni taxaw jàmmarloog ñi nga xam ne ñoo di ay noonam dafa seeni taxaw xeex ba daal di jot ci réew mi di Sénégal fas yéene doxal projet bi ngir Sénégal jëm ci kanam Afrique mën a jëm ci kanam muy nouvelle yi nga xam ne moom maître Seydi Larifou moo ko joxe ci Ousmane Sonko borom Pastef